place bi dëgër aar naa kay taxaw ñu dara. dal bu dal dal bu dal baax. wan keeso meeso reeso. tàngal mantu fereeso. bëgg naa leen yéen ñëpp. dal baax dal bu dal baax wan keeso meeso reeso. tàngal mantu fereeso. dégg naa. jërëjëf borom Touba jërëjëf faxa kabala xat basa fadala fa dóor wala na si jaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di sama papa di ma walaay acca ni ngeen ko waxee yàlla di juru si bu sell mi dina alleluya alleluya yaa di woo sama mbokk njaago yëpp ne leen ak kapp ci nekk ci bilaay walaay yaa di woo nantey jàmbaaru Bambay di woo ñëpp waa di waa di nuyu ñu fi toog ñëpp suñu papa yii nii ñoom père ma sa waaw ñëpp di woo ñëpp yee eh, di naan gars nañ si jàpp yee eh, wan keeso maison réseau amul lu may wax ak moom yàlla ma yàlla may ndam yee eh, di woo ñi ma àndal ñëpp bilaay maanaam kii kii kii bëgguma sax di wax. woote tey fee di woote incha allah rabi a sañ maa ngi gërëm man ma gërëm tey gërëmal tey woote tey. booy roy dàq kii bëreeg man da ngay dem booy booy ay roy dàq bul basé wu si Laurent bandi la man du ma bandi de. d'après nga ngay basé wu si man. non xaaral du ma bandi non personne yi yéego na soro ñuy réew. ak sa soxla waaw su ma la jàppee ala boore boore fi. ala boore boore kii du dégg moo yow si xaru bi barki Sëriñ Tuubaa soo xeexee ma du ma soo bëri wa dara. ngir yàlla may leen ñu tuuti ñu def. Eh, ñu may 5 minutes 5 minutes ñu la ko ñaan 5 minutes ngeen may xam nga booy boobu ñu laa lay wax tey du bési wax yee man maa ngi woo ñëpp yee man maa ngi woo ñëpp xam waa di woo waa demen demen tapet laa looloo baax mais bandi bu dugg sama garde ma mettre la en respect xëppoo suuf tañ mbaare nga naa ma tapet sama jarbaat bu jigéen fi jàppee kii dumoo ko daan ko Zayel moo mën kii fuuf la ma kii sama jarbaat bu jigéen xoolu ko di ñaan yàlla ndam wax ju bëri ji sax jaratu ko yàlla na ma yàlla suturaal may ndam yaa di woo asu faal yaa di woo jàmbaaru bambay sama sëriñ Seex Tijaan di woo Ndey Saar yaa di woo ñoom mi waa ñoom Ami Caam di woo ñoom Yuus ñoom Mala ñoom Taaw ñoom Jeego ñëpp tout waa di woo tamit xam nga DMN ak DMN production te see Wanyimo gan kuangate ngala me tikyo na limona legan. Duangi day sonu si man bu baax day def si man xaalis ay million njoko njal. Duay Demen TV ak Demen production ñii waaye télé lañ yor yaa ñooy Europe Angleterre di ràcc maasaale teg paa yaañi mais di woo ñëpp bàyyi si di mbaaxee ñëpp di woo sama papa Unda Xaarim Puune Fafa waa maaf bi ñoom David ñoom Momo ñëpp di ñu leen woo yéen ñii ñëpp ngeen jaar si ma daan doole man làmb damaa soxla man làmb lu muy joxe lépp laay def làmb daa suruxoon naa xa dekkil soo duggee si tiktok bi man nga fay gis Instagram bi man nga fay gis YouTube bi man nga fay gis suñ ma jàppalee man ma doon champion su aw ma jàppalee na ma gars yi ma doon champion billaay walaay taalaay waa di jégalu ñëpp nag gaan ay ndaw lañ daj deret day circulé. day a a a. sax waxu démb mooy sax waxu tey man damaa judd pour doon champion. waaye sëñ na suy de par rapport boobu lañ doon doon. Eh, di bëggee sama mbokk espagnol yi ah jàppale ci combat yi. da leen naan ay keroog aar pour me jotos ma def la victoria ah. yow keroog daal xam nga wala sama yaay daa ma bëgg a tere si laam mais nekkul jaaga përëm bi moom ngay tere teral ah kii përëm nga ma lool la nga xam ne xoolal kii comme përëm xool ko la nga kii la oo waay waaye di woo ñëpp sama gars yi waa Fass di woo ñëpp bàyyi woo kenn Tiwaan Pël waaw di gërëm sama gars yi ma àndal ñoom Madias ñoom Prophète xam nga Sikki incha allah di woo monsieur le maire Ousmane Ndoye maa ngi koy sant di ko gërëm naa ko nee ningum nee ko toro nee ko liis baax sëñ Ba. jërëjëf yóbbu leen yóbbu leen. Tooma ak ñoom Cheikh waa Top 5. Top 5 fitness. jërëjëf nee na nee na nee na.